sant yàlla bu baax alhamdulilah. nees dañ laa gis ci journée tey. bi. mu mel na da sa poulet tey. waaw samay poulet laa andi su jota kayta la ba léegi dañ laa gisagul nees. waaw maa ngi sama roxu maa ngi sama roxu awoor naa tuuti gàllankooru làmb mais suñu borom saafaral na lépp maa ngi sama roxu maa ngi entraîné. nees da nga daan génn di liggéey. waaw ren ba xam def nga koom defoo. non ma bu ñu tabaskee pare naa man chaque année ma génn Amérique dama fa kër. waaw sama sœur boo ko ndey baay ma fa dëkk buñ tabaski boo gisee mu toog ba léegi dafa xaw a gaañu bu yàggul mu bëgg a toog ba ci kanam wéetale xale yi soog a dem mais buñ tabaski pare mu dem incha allah rabbi jërëjëf nees ñoo lay sant di la gërëm alaa